ci teewaay bi ngeen teew ci wuy si bii nga xam ne nit ñëpp ñoo ci bokk yam muy liggéeyam sëñ Tuubaa la te kenn ku ci nekk di ndaw loo xam ne kilifaa la yebal ku fi waroon a teew te mënu fee teew mu ne la demal teewal ma fa nga ni jamono bi xate ak ni yitte yi bëree surtout ci jamono bii ñu toll ah ñu wàcc seen yitte ñëw teew ci loolu waaye di di loolu jëfe ndigal moo ko waral waaye aussi di sant bu baax yàlla boole na leen ci conseil municipal bi te ñu fi di liggéey te Ndakaar te bu saa bu ñu wootee ñu dagg seen yitte sol seen ab gasoil teel a xëya Ndakaaru ñëw fii te en général bari na ñu xëya Dakar ñoo xam ne ñoo fi jiitu ñu bare bari loolu aussi ak euh, Pastef la volonté la wane nañ ne li ñuy nekk ñor na leen ndax jóge ndakaaru ñëw xawuta xawuta yomb ndax dafa ànd ñaar da ngay a xëy moo tax nga teel a ñëw waaye aussi da ngay carburé sa oto déparé foofa ñëw ba fii donc loolu ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax di ko jottali kilifa yi nga xam ne ah ñu dénk liggéey bi ñu xam ne ñu ngi ci taxawaay bu wér-wér euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen xamal ne rek tey jii defe naa ne bis bii ñu teew tey commune da koo baaxoo collectivité locale bu nekk dana def projet budget waajal ko ay jamono di ko waajal di ko waajal ba ci orientation budgétaire bi defe naa ne lu mat bis ni tey la weer ci gannaaw lañ toog fii waxoon laajoon mboolem li ñu war a laaj ñiñ war a laaj ñu tontu ñu wax leen liñ leen war a wax ngeen joxewoon seen xalaat ñenn ñi ñu invité woon joxe seen xalaat ñu boole kook li nga xam ne commune bi conseil municipal bi xalaat na ko ak service technique yi fi nekk ci kanam sous-préfet bu Ndaam ci kanam trésor public ki nga xam ne mooy yor gafaka gi ñu bokkoon tënk fi loo xam ne moom lañ doon tënk tey jii indil leen ko loola nag dafa wuute ak lii tuuti ndax booy def orientation budgétaire da ngay invité woo ñi nga xam ne chef du village yi ak notable yi ak association yi fi nekk ak groupement yi kenn ku ci nekk dañ leen a woon ñu ñëw fii bi ñëwee kenn ku ne wax na sa xalaat ñi nga xam ne liñ jote a xalaat rafetlu nañ ko waxoon nañ àndoon nañ ci loolu loolu lépp nag lañ tëgg tey liñ fi waxoon ci kanam conseil municipal bi defar ko ci kayit formaliser ko indi ko ñu war ko wate mu war a nekk li nga xam ne moom la commune bi di réaliser ci atum 2024 noonu la ko texte yi tëdd tëggee suñ koy def nag ñaar dañoo war ñëw muy sous-préfet bu arrondissement Ndam bi nga xam ne mooy administration bi dafa war a teew euh, payeur départemental bi nga xam ne moo nekk ci département Mbacké nekk trésor bi dafa war a teew ak conseil municipal bi loolu moo tax moo waral tey rek woote bi defe naa li mboolem liñ doon wax ak liñ waroon a wax ak liñ waroon a laaj waxoon nañ ko ci orientation bi waxoon nañ leen it ne leen danañu déglu lépp li nga xam ne wax nañ ko fi danañu seet li ci mën a am ñu def ko ci ndax li yitte yépp da war nañ ko dégg waaye mënul xajandoo ci bit biñ ko defee nag xool nañ li nga xam ne yaakaar nañ ne xaj nañ ci ak li nga xam ne yaakaar nañ ne li ñuy am te nga xam ne danañ ñu ko jàppalee danañ ko am ak li nga xam ne war naa génn ci dëkk bi ñaar yooyu lañuy boole mooy bit sebi li nga xam ne war naa génn nag war a génn nag taxul a génn waaye da ñun danañ ci def liñ mën lépp pour xam ne lii war na fee génn mën na fee génn na muy génne nag loolu état moo da ci am wàll ndax conseil municipal bi li ko war mooy ne fii la xaalis war a génn mën na fee génn def ko budget wate ko conseil municipal bi wate ko ñu jox ko trésor public moo yor compétence dooley état moo yor baat bi mu dem wuti ko wutil ko ko conseil municipal bi indi ko ci trésor conseil municipal bi di exécuter maanaam muy fay lu conseil municipal bi xalaat ne lii war nañ koo def ñu xalaat ko def ko buñ ko defee mu fay loolu maanaam mooy li nga xam ne moom la trésor a wàllam ci liggéey bi ñun nag commune bi nag moo war ne lii mën naa génn fii lay génne wan ko ni si wax ko bind ko nii ñu binde projet budget bi jox ko ko jox ko jox ko sous-préfet conseil municipal ko maanaam ñuy wut budget bi janvier ba le 30 le premier janvier ba le 31 décembre lu ñu am exécuté lu toll ni li ñu am noonu mooy doxinu budget su ñu amee lu bari danañu mën a réaliser lu bari su ñu amee lu néew na duñ mën a réaliser lu bari loolu moo tax wut gi da ciy am wut gi nag dafa nekk ci ñaari façon